mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point comme à chaque fois ñu ñëw ak ci seen revue l'actualité nekk li nga xam a fës ci xibaar yi a xew li ci gën a fës Serigne Mountakha ni moom mooy Dame Mbodj ak Clédor Sène loolu dinañ ko gën a yaatal ci biir seen revue l'actualité kii di Déthié Fall daal di quitté ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck ñoom ñaar nag ñu yàggoon di ànd ci biir parti bi nga xam ne moom mooy parti réew mi loolu aussi dinañ ko gën a yaatal leeral ci biir seen revue de l' actualité suñu tëj suñu ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d' information limametti point com ñu daal di koy dooree ak ki nga xam ne euh, moom mooy euh, Prési Cissé Prési Cissé nag ñu bëri ràññee ko fi nga xam ne euh, moom mooy Facebook moom nag dañu ko daal di jàpp fa li nga xam ne moom mooy dikk di division des investigations criminelles li waral loolu nag moom mooy commentaire boo xam ne dafa désagréable maanaam neexul ñi li nga xam ne ñoom ñooy waa Dakar Actu commentaire bi sax mu jëmale woon ko ci ñi li nga xam ne ñoom ñooy waa Dakar Actu jàpp ni dañoo daal di attaqué ki nga xam ne moom mooy jën Marcel Diagne commentaire boobu nag daal di leen déplaire

acteur e, e, e, bi di Baye Ely ñu gën koo xam ci góorgóorlu moom nag sortie bi mu mujjee def daw na yaramu ñu bëri ki nga xam ne nag moom mooy Baye Ely dafa daal di feebar loolu la daal di wax feebar depuis plus d'un an lu mat at a ngi nii mu daal di tëdd mënatul def li nga xam ne moom mooy ay activité am loolu nag ci benn entretien boo xam ne doon na ko def mi ngi ko doon wax leneen loo xam ne loo xam ne xamal na ko ci biir entretien bi moom mooy seetaan bi nga xam ne ñu bëri seetaan nañ ko ko moom nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi delloowuñ ko li nga xam ni moom la leen jox maanaam li nga xam ni bëggal na leen ko moom bi mu nekkee ci ay jafe-jafe eh, taxawuñ ko loolu nag day kàddu yoo xam ne eh, ki nga xam ni moom mooy Baye Ely ñu gën ko xam ci turu góorgóorlu eh, moo ko doon wax ñu leen di xamal ni dafa daal di feebar depuis plus d'un an mi ngi wax ni bépp acti activité boo xam ni doon na ko def dafa daal di taxaw ndax mënatul def li nga xam ni moom mooy ay mouvement li nga xam ni moom moo ko dal nag moom mooy maladie cardiovasculaire leneen si actualité ñu wax ci ki nga xam ni moom mooy Déthié Fall xam ngeen ni dañu ko jëlee woon fële nga xam ni moom mooy poste euh, bu vice président bu réew mi moom nag jàpp na ne dindi boobu ñu ko dindi woon nekkul euh, lu jaar yoon depuis boobu nag kenn déggu ko mu yooy ci yàbbe euh, ginnaaw loolu nag samedi bi ñu génne dafa daal di woote li nga xam ni moom mooy conférence de presse conférence de presse boobu la sax gis nañ ci ay leader opposition yu bëri ku ci mel ni Ousmane Sonko Malick Gakou ak ñeneen ñoo xam ni fare nañ ci opposition bi ci biir loolu nag ki nga xam ni moom mooy Déthié Fall fësal na ni moom ak ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck ak parti réew mi bokkatuñu yoon léegi nag ñëpp di laaj nag ki nga xam ne moom mooy Déthié Fall lan mooy euh, ay ambition euh, politique am maanaam fan la daal di jëm ginnaaw bi mu jugee fi nga xam ne moom mooy euh, parti réew mi ñii di waa coalition euh, citoyenne nga xam ni euh, moom mooy euh, Assane Diouf kële nga xam ni moom mooy Clédor Sène ak Dame Mbodj ci samedi demoon nañu fële nga xam ni moom mooy Touba xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké daal di leen recevoir xam ngeen ne ki nga xam ni moom mooy Assane Diouf ak Clédor Sène bi ñu génnee prison taxu ko yàgg noonu le ginnaaw boobu nag ñu dem seeti ki nga xam ni moom mooy xalif général des Mourides ginnaaw bu ñu demee daal di saafonte ki nga xam ni moom mooy kilifa googu le daal di nañ koy dénk li nga xam ni ñoom ci moom nag moom mooy mu daal di veiller à ce que euh, ki nga xam ni moom mooy président Macky Sall du demander li nga xam ni moom mooy troisième manda loolu bokk na ci li ëpp important ci li nga xam ni wax nañ ko ak li nga xam ni moom mooy xalif général des Mourides recevoir leen fa li nga xam ni moom mooy Touba euh, samedi bi ñu génn ñu dal di jéxalé ak ki nga xamni ni moy mooy Guy Marius Sagna ginnaaw bi ko libéré le 24 mars bi nga xamni ci lañu genn ñi nga xamni ñom ñoy internet yi dañ ko bëggoon délo njukkal ci biir loolu nak bëggoon nañ ko jëndal li nga xamni ne moy auto waral ñu dal di lancer ben cagnotte cagnotte bo xamni nak ñi ngi koy lancer depuis samedi bi ñu genn cagnotte bi nak mi ngi tollu jamono ji ci 9 millions de francs CFA loolu nak di ben xaaliss bo xamni bëgg nañ ko dajalé ngir jëndal ki nga xamni ne moy mooy Guy Marius Sagna oto li waral loolu loolu nag moom mooy internet yi dañoo daal di bég ci moom loolu ngir xeex ki nga xam ne mi ngi koy xeex ngir ak ak yelleefu sénégalais ñu daal di koy euh, respecté. voilà mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tey ci seen revue de l' actualité nga xam ni moo gënoon fës ci xibaar yi fi jot a xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d' information limametti point com ngir dara bañ leen a raw ma leen di jox dig daje beneen yoon ak yeneen i xibaar.